jërëgeen jëf mbokki internet yu info 7 tey ñu ngi fii ci diwaan bu Louga ci hôpital Amadou Sakhir mbay tey la àllarba yemook ñaar ki fan ak juróom benn ci weerum juillet 2023 accident bu métti bu méttee métti bi nga xam ne moom la askanuk Sénégal yeewoo niki tey jile booy dugg Louga bis bi nga xam ne mu ngi jóge woon fële ca Fuuta doon ñëw fii accident boobu nag xam ngeen ne li ci faatu ci ay doomu aadama toll na ci ñaar fukki doomu aadama ak ñett am itam ñu bëree bëri ñoo xam ne jëlee nañ ci ay gaañu gaañu toll ci juróom fukk ak ñaar accident boobu nag ginnaaw bi mu xewee Info 7 xam ngeen ne toujours lu xew da ciy ànd ak yen ànd seeg askan bi donte ko tiis na métti na mais ñu toppal leen li nga xam ne moo fi xew ba tax na ñu déplacé wu jógee fële ci Touba ñëw fii ngir topp lépp loo xam ne xew na fi. ñu daal di leen ko dégtal fekk fi ñu nga xam ne ñoom la seen i mbokk wàññeeku si accident bi ñu dékk leen suñu micro waaye autorités yi nga xam ne ñëw nañ fi muy ministre de ak ñi nga xam ne ñoom ñoo féetee ci gox bi muy euh, maire Moustapha Diop ak ñi nga xam ne ñooy responsable yi ñu féetee ci transport bi ak isaas yi duggoon ci oto bi doon ay rescapé ñëpp dinañ dugg si ñoom dékk leen suñu micro waxtaan ak ñoom ñu wax ñu accident bi naka la demee lépp ñu daal di leen ko toppal fii ci Info 7 TV kon mbokk yi ñu topp leen ñu ñu dugg ci biir wan leen lépp loo xam ne xew na fii ci hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga ginnaaw accident bi fi am tey ba jur ñaar fukki doomu aadama ñett yi ñu ci ñàkk seen bakkan ñu bëree bëri jëlee ci ay gaañu gaañu toll ci juróom fukk ak ñaar kon bu ngeen ñu toppee ñu dugg ci biir wan leen li fi xew fii ci diwaan bu Louga. lii fi xew tey ci suba ci booru 7 h fële di tolloo ak euh, forage yu jëlër jëlërlu sil gis nañ ni lu mat juróom-ñaar fukki ak juróom benn ñoo nekkoon ci oto bi jóge Cubbalel Laaw jëmoon Ndakaaru bi secours yi ñëwee di sapeur pompier yi ànd ak gendarme yi gis nañ ci saasi bi accident bi amee ne am na ñaar fukki nit ak ñaar yu ci ñàkk seen bakken ci saasi ñu gis ni ñeenti xaleel yu tuuti bokk nañ ci ñeneen ñi ci des am ay gaañu gaañu bi ñu leen indee diggante Louga ak Ndar fii ci loppitaan bi laata ñu yegg si am na kenn ku ñàkk bakkenam waaye fële ca ndarit am na kenn ku ñàkk bakkenam lim bi toll ci ñaar fukk ak ñeent ñu am ci wetu limu ñi faatu di ñaar fukk ak ñeent ñu am juróom fukki nit ak ñaar yoo xamante ni dañ ci am ay gaañu gaañu loolu nag dafa laaj ñu taxaw ci tuuti ab diir ngir leeral ni carte grise oto bi mooy këyitu d'identité oto bi bi wane oto bi numéroom ak ñaatal nit la war yàpp ak ban at lañ ko defar ak bépp xibaar bu soxal oto bi ak dund ak ni mu nekkee di daw gis nañ ni juróom benn fukki nit kepp ñoo waroon nekk ci oto bi waaye li ñu gis ci oto bi ci ñi gaañu ak ñi faatu yegg nañ ci juróom-ñaar fukk ak juróom benn loolu tubaab di ko wax surnombre maanaam oto bi defoon na lu ëpp li mu war a yàpp loolu nag euh, gisoon nañ ci weeru janvier bi ñu weesu bi accident bi amoon Sakal ak 6 kilo amee premier ministre ci ndigalu président de la république woote woon na am ndaje bu ministère yi ko seq yëpp ñëw teew waaye tamit suñu mbokk transporteurs yi ak suñu mbokku chauffeurs yi ñëw teewee ko biñ ci waxtaanee ba noppi gisoon nañ ni am na ñaar fukki dogal ak ñett yu ci waroon soqe ko ngir wàññi accident yi wala sax accident bañatee am moo doon lii sababu waxtaan woowu di sababu ndaje boobu biñ ko tàmbalee ak léegi gis nañ ni accident yi am na lu bëree bëri lu ci wàññeeku woon ba tey bi ñuy wax ni ba tey accident bi am nii tey ci suba bokkoon na ci dogal yi ñu jëloon mooy oto yi yàpp nit ñi duñu dawati guddi loolu nag gis nañ ni oto bii tey accidenté bokkul ci oto yi nga xam ni dinañ daw guddi te biñ ko saytoo seet ko gëstu ko gis nañ ni dawul guddi dafa jóge Cubelel laaw ñëw ba Richard Toll mu fanaan fa xëy suba war a continuer yoonam jëm ci dakaar malheureusement dafa am surnombre te loolu jaaduwul loolu question la boo xamante ni liggéey bi ñi ngi koy def lu mu rafet rafet jur ay résultats am na loo xamante ni des na te war nañ ko continuer te loolu dinañ ko wéyal. te suñu mbokku transporteurs yi ak suñu mbokku chauffeurs yi ala kuli haal mënta ñàkk lépp luy war a mën a ñoŋal bakkanu doomu aadama wala yaramam kooku il faut ñu jël ko comme mesure donc 23 mesures yi ñu applique yi euh, tukkee woon ci conseil interministériel bi te premier ministre ak président de la république saxal ko ala kuli il faut ñu continuer di ko wéyal may sant nag bu baax service yi nga xamante ni ci turu président de la république ñoom ñoo gaaw ñëw Euh, taxawu ñi amoon ay gaañu gaañu ci accident bi muy sapeur pompier muy gendarmerie waaye tamit muy service su ministère de la santé rawatina hôpital bi nekk Louga waaye tamit hôpital bi nekk fële ca Ndar. waaw moom maa ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di leen sant euh, waaw man maa ngi tudd Ousmane Sall je suis le président des chauffeurs de la région de Louga en même temps je suis le secrétaire national des chauffeurs du Sénégal yàlla daa def nag accident bi si ñun la dal. wante su dalee su ñun président national bi nga xam ne si mooy Dame Lo téléphoné na ma suba yabal adjoint muy sëñ Diop le président du regroupement des chauffeurs de Thiès su ñëwee fii ànd ak délégation bi kon dama koy jël kàddu gi rek jox sama kilifa Pape Diop su ko defee li ngeen koy laaj ngeen laaj ko ko. Euh, suñu président national Dame Lo moo ma woo ci suba ma mbir mi mu koy yëgalee ni naa ko yëgal euh, président regroupement Madda. ak falu Ndiaye président falu Ndiaye ak président euh, Mamou Diakhaté ak président euh, Abdou Ndiaye kay maire ànd ak seen responsable mi nga xam moo yore équipement rage bi Thiès Elou Diakhaté euh, ñu woo président Ousmane comme ni nga ko waxee mooy secrétaire général bi mu ñëwee man en tant que premier adjoint mu ni moom dafa sori ne ma man mi gën a jige ñu ñëw ñëw ci turu président national Dame Lo di masaw ci lii nga xam ni moo dal suñu kaw ndax li daal suñu kaw loolu métti la lu ñu masaw askan wi la di ci ñaan yàlla yàlla def ci jàmm gën a yokk ci jàmm ci réew mi ci ak oto di ñaan yàlla nag lii gëj fi moo tax daal suñu tànk ñëwoon fi masawu askan wi Sénégal moo tax suñu président national yabal ñu ñu ñëw fi waaw dañ koy teg ci loxol yàlla ba pare benn beet waxaat naa ci bee passé ci waxat nañu lii xam nga nit ku jógee Fuuta nga téye ko ci benn place mu fanaan fa client yi nelawuñu ñu chauffeur bi nelawul chauffeur bi ci ko sem lay nelawe client yi ci ko sem lay nelawe kon li ñu leen waxat ni euh, dawal téye minuit bii amul njariñ chaque jour yàlla dañ ko wan ndax lii lépp téye wi la oto bi jógul Kébémer jógul Ndar fu mu jóge ñu ne Fuuta ñu ne ma foofu ñu téye ko ci foofu suur foom fanaan du nelaw nelaw yu baax kilaay du ñu nelaw nelaw yu baax kon li ñuy wax toujours yàlla ndogal day am boo gis ndax li président wax léegi ñi nga xam ne dañ ñoo doon yéeg ci oto bi ki ci faatu doon nañ ko wàcceeg oto bi mu ni xas na maa toog bu pare nañ ma bàyyi ma dem ñu bàyyi ko mu dem ñett ñett ñi nga xam ne ñu nekk ci beneen oto ba ñëw fekk ko fa dugg ci deuxième car fekk ko fa mu faatu kon yàlla programme na ñooñu waa nag toujours ñu gën a ñaax suñu mbokk chauffeur si di di gën a ñaaxat ñun transporteurs yi ak président de Goumayet toujours ci loolu lañ dëkk. non dama ni sofot coona bu jógee Fuuta ñëw ba foofu ñu baare baare ko téye ko fa ba ay quatre heures matin cinq ñu bàyyi ko dama ni du mën a nelaw nelaw yu normal ci otoom parce que sofot day dem tëdd ci ab lalam nelaw ba fajar mu sangu yaramam féex mu mën dem dawal dawal conscience loolu laal wax mais amaa jëm yi ñu baare la minuit quatre heures matin cinq boo ñëwee nga fudutu sël mu dem loolu yaram yi fu mu sangoo te yaram da ngay sangu yaram mën a bàyyi ah loolu moom lu ma xamul du ma ci wax ndax lu ñu wax rek à ndax man fekkewu ma ko moom mi ko fekkewu keneen fekkewu ko waaye nag bu fekkee ñu ci hôpital bi ñu ne nangam faatu na ci nangam blessé na ci ñun muy ministre bi muy ñun dàkkuñ ci dara ci di station kenn amul benn président regroupement wala benn transporteur bu naan oto bi si bu ko appliqué kay euh, tëli baa ngi fi alkaati yaa ngi ci tëli bi sanam yaa ngi ci bi boo mën ko ñu jàppale. mais oto bi accidenté ñun fekk ah, loolu yaa ko gis xam nga yow mi ko gis yaa ko gis man gisuma ko man mun ma ni Versailles am na ci mun ma ni Versailles amu man si client yi laa bokkoon waaw. accident bi ban heure la am naka la demee. accident bi ay 7 heures lay doon def waaw heure boobu la. accident bi xam dafa doon taw euh, après nag moom dafa doon daw en vitesse après nag euh, dafa glissé rek dem def accident waaw loolu rek la mu tàkk waaw instant boobu xam nga man ci biir oto bi laa nekkoon man yëguma ko si après après noonu taf rek euh, ins boobu gis gars laa gis gars yi di génn oto bi moom heure boobu laa génnee rek di bëgg a yeneen yi après nag euh, ma ma bëgg a euh, yeneen yi mais mënuma ko parce que dama dama tiitoon parce que dafa blessure bi dafa grave waaw loolu tax man mënuma laal kenn après ma daw ko dem euh, mooy client yi am na ko xamante gars yi gars yi nekkoon foofu ci biir am na ko xamante ni tànkam dafa doon kale foofu dama bëgg a xëcc bi rek mais nangul dem ma bàyyi ko noonu après kii sapeur yi ñëw après tàkk ma rek ma dem dem toog beneen beneen place loolu waaw loolu la dama waaw loolu sax mën na nekk dëgg la parce que heure booba dama doon nelaw tuuti après dama yeewu rek gis euh, taw bi ñëw après ma bëgg a ma bëgg a loolu pour taw bañ a dugg si ci biir ma gis emprunté non kii chauffeur bi. di glisser oto bi di def ay volant yi di zigzag rek après oto yi doog a daanu quoi après mooy loolu la demee quoi. ñun ñëpp ñu am dëj waaw waa Fuuta daal daal ñoom ñoom ñoom daal ñoo nekk ci naqar bu métti métti métti métti. waaw mais fi mu toll nii yéen waa Fuuta. Mhm. lan ngeen teggul seen loxo seen nombre de décès yi nga xam am ngeen ko nu mu nu mu toll. Mm, génn guñu am na tamit ñu am ay blessures yu métti waaw am na xam ñu ngi am blessures yu métti ñu ngi ci urgence. am na ñoo xam ne tamit tane nañu ñu ngi leen yóbbu ci yeneen évacué leen am ñoo xam am na ci benn boo xam ne ñaari doomam gaañ nañ mais ñu ngi ko évacué fee euh, bu Saint-Louis doomam ñi fi euh, gaañoogum actuellement mën na lal ay huit non huit ñi gaañu huit ñi jot a ñu jot a xaymagum daal mën nañu mais blessures yi moom mënuñ wax ni ñaata la ndaxte am ñoo xam ne gisaguñ leen dañ leen di dégg rek waaw. bis bi horaire la woon. horaire la waaw horaire Kasga la horaire Hakunemaaji li doonoon sunu teewaay fii mooy jóge Ndar yem ci accident bi yëg ni suñu ay mbokkum jullit yoo xamante ni bii ñii seen bakkan des na fa ñii nekk ci diggante dund ak dee soxlawoo deret waaye itam soxlawoo ñaan ñu ni sunu ngor mayuñu ñu jóge Ndar yem ci di romb nañu fi jaar massawu ñi dem. waaye itam woote appel boo xam ne dafay jëm ci képp ku wër Louga boo mënee ñëw ci hôpital bi maye deret nga def ko parce que dimbali sa mbokkum jullit la. loolu daal moom waral tànk yi maag oustaz Pape dañu ñëw rek romb juste yem ci accident bi moo tax ñu ne nañu fi jaar masawu ñi nga xam ne ñoom ñoo am mbokk yu ci ñàkk seen bakkan waaye ñi nekk ci hôpital bi ñu seet leen ñaanal leen yàlla yàlla yëkkati leen. waa ñu gën a amaat dal rek xam nga bakkan moom fu ko yàlla tudd ni fa yem fa yem kenn mënta romb sa bis. waaye tamit la sëñ Fall daan wax rek daw ndànk dal ndànk gën leen ñaaxaat rek ci dal daw ndànk dama amaat nag beneen gis-gis ci heure bi nga xam ni moom la président joxe woon ne bu jotee nañ arrêté benn bis bañ a muy minuit dama jàpp ne bi mu koy def solution moo taxoon mais dama jàpp ne man dindi minuit bi dafa gën parce que bu fekkee da nga ni chauffeur yi 6 ngeen di départ am ci ñoo xam ni dañuy yàkkamtee wàccee client yi nu yeb pour yebaat wu retour njëkkante boobu mën na indi accident man su ma sañoon sama gis-gisu bopp nag laay wax mooy heure bi ñu placé woon pour heure yi heure yooyu bu jotee oto yi taxaw ñu bàyyi ko te gën leen a digal ñuy daw ndànk parce que nit boo ko nee bu une heure une heure jotee nga arrêté mu gaare yëpp ay client am keneen ku gaare yëpp ay client ñu ne 6 heures jot na prix départ leen ku ne da ngay yàkkamtee àgg pour wàccee say client pour def retour xalaat bi ma am mooy ñu dindi heure bi orienté leen yokk montage yi gën a ñaaxaat chauffeur yi gannaaw dogalu yàlla ñu gën a def ndànk rek incha allah. waaw li ñu fi jot a yëg daal mooy am na ñu fi nekk ñoo xam ne sonn nañu dañuy ñaan yàlla nag ñooñu yàlla yëkkati leneen li ñu fi déggaat mooy hôpital bi ñu ngi jàmbat ni dañu am problème scanner nañu leen ci dimbali hôpital bii du hôpital bu ndaw tey li wër Louga ku ci feebar fii nga jëm si. hôpital bii war na nekk ci condition yu baax ñi fi nekk nag ñu ngi góorgóorlu waaye bu ñu ne scanner dafa am problème dañuy ñaan état mu gestuwaat hôpital bi gestuwaat Louga gestuwaat itam barab yi nga xam ni nit ñi bu ñu sonnee wala ñu feebar wala ñu jaaxle dañ fay dem. jërëjëf mbokki internet yu Info 7 comme niñ ko waxee woon ci ndorteel gi fii ci hôpital Amadou Sakhir mbay bu Louga li nga xam ne moo na woon tey muy tiis wi am tey jële di ab accident bu métti bu metti métti boo xamante ni méttiwaay gi foo ko natt weesu na ko. dugg ci biir gi kilifa yi ñëw nañ fi moo xam autorités yi nga xam ne ñooy ministre de l'intérieur ak préfet ak sous-préfet ak ki nga xam ne moo nekk maire gox bi di Moustapha Diop ak yeneen i kilifa ba ci responsable yor wàllum transport bi ñëw nañ fi jël nañ itam ay réaction si ñi nga xamante ni ñoo nekkoon ci oto bi def accident ak ñenn ñoo xam ne itam mbokk ci ñi faatu lañu bokk jóge fa nga xam ne mooy eh, sa Fuuta oto boobu nag tey jile suba gi la daanu mu doon accident boo xam ne bu métti métti la waaye itam ñu gis ne ren jile rek ñaari accident yoo xam ne am na fii ci diwaan bu Louga bu yàggul dara lu nu mel amoon fi si weerum avril juróon fukki nit ak juróom-ñeent yi ci ñàkkoon seen bakkan tey jëlee beneen bu accident juraat ñaar fukki nit ak ñett ci ñàkk seen bakkan ñu bëree bëri jëlee ci ay gaañu gaañu loolu nag léegi li des mooy kilifa yi gën a xoolaat gën a jëlaat yeneen mesures waaye ñi nga xam ne ñooy chauffeur yi nekk ci oto yi di daw ndànk di dal ndànk ndax ku jógee ci këram di tukki wala mu jógee këram tukki bay dellu si njabootam daa di faatu si yoon yi loolu ku ne xam ne lu métti la ndax tey ku ñëw fii ci hôpital bu Louga di nga xam ne li fi xew lu tiis la du doy waar la mu doon loo xamante ni mbokki internet yi Info 7 mooy li ñu leen jëlal ci woon fii si diwaan bu luga comme ni ko Info 7 defee saa su ne lu xew mu dem ca moo xam xew-xew bànneex la moo xam xew-xew naqar la tey nag xew-xew naqar la woon mais ñu métier mooy di leen dégte ay xibaar saa ne kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci topp gi waaye di gërëm Mor Kane mi nga xam ne moo féete woon ci wàllum caméra bi nga xam ne yaatal nañu dalal ñi fii Louga kon mbokk yi jërë ngeen jëf ba beneen jamono.